cher ami fidèle internaute Sunugal 24 amna ñu mbégte bu yaatu di leen nuyu ci bato assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am mbégte fépp fu ngeen mëntu nekk ci réew mi wala sax ci bitim réew ñu fekk leen fa nuyu leen ziar leen waaye itam ndokkeel leen waxtu wu nekk ci mbégte gi ñuy am ci seen ànd ak ñun ci Sunugal 24 tey ñu am euh, jotaay bu am solo boo xamante ni moom la ñu fas yéene amal di plateau spécial boo xamante ni li ko tax a jóg moo di wàccaayu ziar annuel bu Arafat bi nga xamante ni ñu ngi ko jàpp ci samdi 6 mai 2023 bi la ñu dëgmal tax ba ñu fas yéene jotaayu tey ak lenn ci njabootu kër googule di kër Cheikh El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 الحمد لله القائل في محكم تنزيله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع آله وأصحابه القائل وعند ذكر الصالحين تتنزل رحمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki internet yi teewlu seen mag bi di Sunugal 24 ñoo ngi leen di nuyu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, di ci jiital borom bërëb bi di ko ziyaar ak ñi bokkal ci liggéey bi ñaan yàlla mu yokk seen tabaarakallahu tawfiq euh, di nuyu suñu Mansour ñu ngi dalal tey di nuyu suñu mbokk Mouhamadul Amin Dramé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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشكر الأق محمد المنصور وأشكر العاملين في محطة سنغال 24 وأشكر المتابعين لهذه القناة incha allah taala ñuy sant sunu mbokk Mouhamadul Mansour ak képp koo xam ne rek yaa ngi liggéey ci Sunugal 24 am mbégte bu baax ci dalal gi nga xam ne moom la ñu dalal tey ci studio bi di amaat mbégte di toog ak sunu xarit sunu sëriñ sunu kilifa Seydina Omar di ñaan ci borom bi tabaraka wa taala li ñu fi fas yéene indi yëpp yal na nekk njëriñ incha allah incha allah euh, te yaakaar nañu ko bu baax a baax jiital nag ci jotaayu waxtaan bi nuyu bu baax a baax ak ziar euh, Mawlaay alxalif Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Dramé bi nga xamante ni tey moo toogee toogaayu Cheikh El Hadji Omar Dramé naka noonu itam euh, rakkam Baye El Hadji Saïd Dramé ak mbooleem njabootu Cheikh El Hadji Omar Dramé bu ñu ko waxee nag làmbaale na deret ak taalibe yëpp yi nga xamante ni aju nañ ci googule kër moom Hadji Omar Dramé moom lañ fas yéene waxtaanee tey ci plateau spécial bi nga xamante ni moom la ñu jagleel tey euh, kilifa gu tëdd euh, euh, waxtaanee ko ak itam gëstu waaye itam fas yéene ñëw ci parcours am ci wàllu cosaan bi nga xamante ni am na ko yan fam ba ci ban famille la bokk waaye itam jaar-jaaram ci wàllum njàngam dimension wu xam-xamam waaye itam ci wàllu tariixa bi nga xamante ni bokkoon na ci mu di tariixa Cheikh Ahmed Tidiane yi mu di tariixatu Tidiane ya waaye itam ginnaaw loolee itam samp ay dëkk yoo xamante ni ba léegi ngi dund ñu koy dundal ci wàllum njàng ak njàngale waaye itam taxawu ay doomu aadama defar leen ba nga xamante ni seen gox ya nga xam ne fa la ñu dëkkee ñu ngi fa di defar ay nit te yooyu yëpp bàyyi ko ci biir daaram euh, jëmu jooju mooy ki ñu fas yéene waxtaanee ci ndimbalul dóor waar bi nga xamante ni moo nekk ci technique bi bu jàppandee dina leen jébbal élément bi nga xamante ni def nañu ko ci moom ngir gën leen a xamle ak jëm ju taasu jooju di El Hadji Omar Dramé dóor euh, bu dee begg dina élément bi rek ñu dem jëli ko euh, avec la complicité de Russie ñu jëli élément bi euh, ànd ci ak yéen euh, teewlu ko après dellusiwaat ci li nga xam ni moo di plateau bi ngir wóyal waxtaan bi incha allah. alxaaji Omar Dramé moo doon turam nekkoon doom ci alxaaji Malick Dramé ñu gën koo xam ci Serigne Par ak soxna Aminatu Sall moo ngi gane àdduna ci atum 1897 ci dëkk bi la di Por Dramé Serigne Por mi baayam doonoon waliyu yàlla wu jamonoom yépp xamoon nekkoon doom ci Mam Saïd Diarra Dramé bokkoon ci góor yàlla yi njëkk taxawal juma ci réewum Sénégal moom alxaaji Omar Dramé mën nañu ne yàggul dara ak nekk ci réew bu gam bi naka noonu itam dëkk bi la di alxaaji Omar Dramé taxaw temm ci jëmmal xam-xam ne jaar na fa sàkkoo fa xam-xam ngir cër bu rëy bi nga xam ne amoon na ko fa daara El Hadji Abdoulaye Cissé miy borom jaamal ginnaaw bu mu fa fàggoo xam-xam bu bari lool moom Cheikh El Hadji Omar Dramé ci atum bi nga xam ne ci la dëkk bi nga xam ne dëkkub taarix la doon dëkk boo xam ne bu ñu bëri yàgg dégg turam la waaye yéene bi mu amoon ngir gën a yaatal ak itam dëgëral wasaare wooteeb lislaam fépp tax ba mu sanc dëkk bi la di Faas ñu gën koo xam ci Banjul ci li ñu jot a xamal sax moo di dëkk boobule di Banjul fa a bàyyi ko dem makkatal maanaam def première ajam atum 1949 ci la taxawal dëkk bi la di Arafa mu mel ni Arafa googule moo doon dëkkuwaayam nekk itam bërëb boo xam ne taxawal na ko ngir wëyal ak jëmmal tànk yi nga xamante ni waajuram bi la di Serigne Por amoon na ko ak maamam jële di maam Saïd jaara di liggéeyal alquran ginnaaw bu ma ko sancee def ko daara mu doonoon daje waayu wëy sàkku xam-xam yi ci jooju la jamono maam Alhaji Omar Dramé yitteeloon lool xam-xam waaye nag desalul ginnaaw benn yoon li la di liggéey tax ba atum 1965 ci la gor toolam yi la di xaahira mu doonoon bërëb boo xam ne jaayante kaay la bu taalibe yi ràññee woon daa fa amal mbay ak itam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tarbiya ñeel taalibe yi nga xamante ni ñoo doon jaar ci loxoom moom El Hadji Omar Dramé ci taxawaay ak itam jëmmal li nga xamante ni moo di liggéeyu maamam ak i waajuram tax ba mu yeesal jumaa ji nga xamante ni maamam moo ko taxawaloon ci por ci atum 1957 méngale ko ak jamono ba ñoo ngi xam le ne ci joojile jamono gis jumaa ju ni mel woon na lool ci tundu Saalum ginnaaw jumaa yi por ñetti at lañ ci teg mu taxawal jàkk ji nga xam xamanteni mom la tabax ci bu tedd bi le di Arafat mom El Hadji Omar Dramé yitteeloon lol yoonu màkk ba tax dem na màkkatal mukarram lu tollu ci ñetti yoon waye tam bari lol ay rawati na ci ay talibem ño xamne fexe na dem màkkatal mukarram relation bu lalu won ci ciofel ak ngëm-ngëm gu amul apo mo doxon ci digentem ak talibem tax ba ci atum 1966 ci la ay talibem jëk amal ab ziar ngir jaglel koko mom El Hadji Omar Dramé dimension xam-xamam foo na te rek wessu nako mom El Hadji Omar Dramé waye tam ma xam ak wilaaya bu rëy bi nga xam ne amoon na ko ñi jamono wante ak moom ñooñu koy dëgg imaamul xawmi yaa cheikh bi waaye itam euh, ñi nga xamante ni yëpp ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu yegg si file Seydina Omar ci yow la ñuy dooree euh, Cheikh El Hadji Omar Dramé boobee nga xam ne moom lañ ñu doon jéem a melalal ci anam ak tënk. Mm-hmm. boo ñu doon ñëwal ci cosaanam ci wàllu juddu ngir ñi ko xamul fan la bokk moom Cheikh El Hadji Omar. suñu Mansour euh, Cheikh El waajur yoo xam ne ay sang lañu. Mm-hmm. ci waajur wu ñuy wax Cheikh Malick Dramé ñu gën ko siiwee ci maam Serigne Por. Mm-hmm. Cheikh Malick Dramé nekk doom ci moom ay jaara ñoom ñëpp ay sang lañ yoo xam ne seen taxawaay ci diine ci jàng ak jàngale lu fës la ci réew mi maam ay jaara ay maamam ay maamaatam ñoom ñëpp benn métier lañu lañu yoroon mooy jàng ak jàngale ak woote ci diine d'islam kon waajuram ci tabaarakallahu waajuram bu góor mu ngi bokk ci famille bu tedd mm-hmm. famille boo xam ne ni ma ko waxee ñu yàgg leen ci lislaam mm-hmm. waajuram bu bi tamit xaakada mooy maama Aminata euh, Dramé Sall maama mm-hmm. Aminata Sall maama nga xam ne moom mi ngi bokk ci njabootu càlleen boo ne maam Mouhamad Bamba Sall moom moo ëmb càlleen moo xam waaw bu Bamba Moodu xam ne mooy turndoo Serigne Touba Euh, moom foofu la bokk mooy moom maam Aminta Bassine Sall. Mm-hmm. ku ñuy wax euh, maam Abdou Sall moo ko ni euh, fa ca Saloum. Mm-hmm. moom itam mu nekk soxna su tedd soo xam ne wax nañ ne liggéeyal na borom këram liggéey bu boo xam ne yàlla na mu am ku ni ki ñu bëgg a waxtaanee. Mm-hmm. incha allah danañ ci ñëw ci kanam. kon daal ñaari waajur yi ko mel nii mooy maam Maali Xorojo Dramé. Mm-hmm. gën a siiw ci Serigne Port waajur bu jigéen wa di maam Aminata Basin Sall. tabaarakallahu si Mansour. macha allah euh, bu ko defee nag euh, daanaka li ñuy faral di wax ñu bëree bari mooy tooguñu ngir waxtaanee ay xar baax ak i kemtaan ngir yëm nit ñi li ñu amal solo ci jotaayu waxtaan bi mooy euh, li nga xam ne mooy li doomu aadama war a mën a roy ci suñuy mag ñuy jël di ko teg ci penc mi ngir di ko waxtaanee ba solo mën ci <coughs> jógee dëgg-dëgg loolu ci wàllu cosaan la ci wàllu famille. Mm-hmm. Mahamadul Amin li may commencé ak yow mooy ginnaaw boo xamante ni Cheikh El Hadj Omar gane na àdduna kii euh, Sidna Omar waxee sànq ci diggante ay wayjur yoo xamante ni ñu donn alquran lañ ndax ñoo ko jàngal alquran ak itam njàngam alquranam naka la demee. fa tabaarakallaahu Cheikh Mouhamadul Mansour balaa ñoo ñëw ci laaj boobu ñu ngi ziyaare sunu xalifa. Mhm. Cheikh Ahmed Tidiane mhm. ak euh, sunu baay alxaaji Saïd. Eh, suñu leen neyoo rek neyoo nañ mbooleem njaboot ak maam Cheikh Seydil Hadji Omar gi mm-hmm. neyu taalibe yi neyu sopp yi neyu am di jàmm yi ak fu ñu mën a nekk rek mm-hmm. eh, mu mel ni ñëw ci laaj boobu mm-hmm. muy góor yàlla gi ñuy waxtaanee muy Cheikh Alhaji Omar Dramé gannaaw ba mu juddoo ci ñaari diggante ñu tedd ñooñu fan la commencé njàngam alxuraan Cheikh Seydil Hadji Omar mi ngi commencé njàngam alquran ci por ci loxoom la commencé njàngi alquran gannaaw boo xamee ne nii bàyyam làqu na nag ci la dem ci mottalee njàngum alquran hmm. bi mu fa wattoo alquran xifdan mutqanan ala dahri qalbihi hmm. dafa def intiqaal di def li ñuy tuddee laawaan laawaan ci jamonoy mag ñi mooy nit ki bu mokkalee alquran fay wër ci yenen daara yi di xol dawabitul quran yi soobu ci sa ko way juróom alxaaji Malick Khoroja Dramé almashhur bi serigne por ci momé le commencé njàngum alquran gannaaw bu serigne bi laqo dem na ci dëkku nijaay mi muy fas anglais gannaaw gu jigeena fa dem jaagaan fofu nak la mokkalee alquran gannaaw bu jugee na fa def li ñuy wax laawaan fa sabarakallahu mag ñi xam nañ lan mooy macha allah dinañ dinañ ñëwaat ci bu nga xamante ni euh, jaar na ci wàllu alxuraanam euh, ku xam euh, El Hadj Omar Dramé wala sax ci Dramé comme li nga ci jot a wax daanaka dafa mel ni ñu doon alxuraan la ñu mm-hmm, mm-hmm. El Hadj Omar ginnaaw boo xamante ni woy juróom génn àdduna génn àdduna effort yi nga xamante ni def na ko ba am njàngam amul tardement mm-hmm, loolu itam bëgg naa nga ñëwal ma ci macha allah si Mansour ni ko Mouhamed Lamine waxee te introduire bi vidéo bi daanaka résumé résumé na li nga xam ne mooy mhm. jaar-jaaram mhm. bi nga xamante ne judd na ci ñi wajur tëdd yooyu ni ko suñ suñ Lamine waxee mhm. ci la euh, laxas dem jaagaan sader euh, gën a rafetal njàngam beqi alxuraan mooy bind alxuraan te gisu ko ba ni ñu ko waxee nee ñu jafe woon nag nga rawante ak moom ci alxuraan te du yaay féete suuf ci ni mu ko ni mu nu mu xereñe woon ci xam alxuraan rawatina wàllu mbind nekkoon ku rafet loxo lool te gaaw ci bind ay kaamil yu bari lool tabarakallahu kon daal alxuraan moom nekkoon na bokkoon na ci spécialité bu Cheikh El Hadj Omar comme ni nga ko xamee rek ci fi mu fekk baax comme ni nga ko waxee ci loolu ci la sax ba ni mu demee jaamal tabaarakallaahu dem sàkku ji xam-xam mu sharia euh, am fa juróomi at ginnaaw boo xam ni jàng na alxuraan ba pare euh, yaa ngi dugg ci njàngum xam-xamam jaamal la ko jàngee waaw ko jàngee ci sëriñam maam Abdoulaye Cissé borom jaamal mhm. xam na insha allah suñu lamee dina ci gën a xuus mhm. mu ci àggee mhm. waaye daal alxuraan ji yàlla may na ko ci lool tabaarakallaahu comme ni ñu ko xamee rek euh, bind na lu mat juróom-ñaari kaamil. ci loxoom ci loxoom. ñu jëbbal ko Serigne Touba xëy na loolu bu ñu àgg ci àllaaxaam di ngeen dem ak fi nekkoon. Mm-hmm. dinañ ci gën a ñëw. Mm-hmm. Euh, waaye daal tabaarakallaahu euh, ku yàlla may doon ci wàllum njàng. Mm-hmm. rawatina macha allah euh, Mamadou Lamine ginnaaw alxuraan bi ku ne xam ne ne suñ mag ñi respecté woon nañu loolu njàng waaye nag bu ñu noppi waan ci alxuraan bi dañuy fexe dem ngir yaatal fexe xam dëgg-dëgg alxuraan lan la mu di njàngum xam-xam yan daara mooy yi gën a euh, fës ci yi mu jaar ak itam euh, lam fa jëlee ci xam-xam looñ ci mën a wax fa tabarakallahu ñuñ pour ñu ñëw ci njàngum góor gi ci wàllu xam-xam mm-hmm. gurgi waxtane ko il faut moy waxtane l'islam moy waxtane jikko moy waxtane tariq inshallah yoy buñu démé ba ci kanam dañ ci gëna yaatal ndax euh wumpele woné l'islam gëna bo xamé ni déparé na munsu fi fajiri yi gëna bo xamé ni feñ na li ñëk jàngal ki nga xamné ni mom lañ ko jox muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jàng ay bi njëkk wàccee ci moom mooy jàngal iqra loolu lañ njëkk wàccee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu ñu nee waxtaanee góor gi mooy waxtaanee lislaam góor gi bi mu xamee ne nit pour mu mën a jubal pour mu mën a ginde fokk dafay jàng moo tax itam moom bi mu tollee ci war a jàng dafa jàng alxuraanam ba alxuraanam mokk ba rafet mu soog di ci njàngum xam-xam njàngum xam-xam boobu nag am na ñu wax ne jaar na ci ay barab <laughs> waaye barab bi nga xam ne moo gën a fës ci barab yi mu jaar <laughs> mooy jaamal ci boroom xam-xam bu mag boobu di sunu maam alxaaji abdullahi siise rahmatullahi alayhi wa radiya anhu <laughs> comme ni ko oustaz omar waxee li ëpp ci li mu jàng ci xam-xam ci góor googu la ko jàngee muy alxaaji abdullahi siise def na fa ab diir ci gëstu xam-xam ba góor gi làqu ci atum 1925 ci la góor gi laxas ay téereem ne man omar haminta sama téere dootu moo ko taxal tàllati keneen booba fekk na lim soxla ci xam-xam yépp jàng na ko ci maam alxaaji abdullahi siise mm-hmm. ndax lii wane loolu euh, alxaaji omar Dramé def na ay xasaayit yu bari ci kanam boroom jaamal kon bindkat la woon bindkat la woon mag def na ay xasaayit yu bari ci kanam boroom jaamal yoo xam ne daf ciy tagg boroom jaamal bokk na ci itam ñi nga xam ne bi boroom jaamal làqoo ñi doon ko denc moom alxaaji Omar Dramé ci la bokk bi boroom jaamal làqoo def na ci moom marsiya bu yéeme boo xam ne mos naa gis benn majmua boo xam ne dañ cee dajale mm-hmm. euh, maanaam marsiyaat yi nga xam ne dañ ko def ci borom jaamal liir naa ko mm-hmm. bi ma ko liiree gisuma ci benn marsiya bu gën a rafet marsiya bi nga xam ne moom la def ci borom jaamal marsiyaam bi mi ngi ko xaafiya bi mu ngi nekk siiniya boo demee ca mat matlawul ba mun a indi aqulu wa qawlun xaqu nibraasi foofu la xasida bi dalee mhm. ba nga topp xasida bi ba ci biir fa tabarakallahu da nga gis wax yu rafet yi nga xam ne nii moom la def ci borom xam-xam boobu ndax daf ko bëggoon trop mhm. ndax li lay xamal ba gim ko bëggoon mhm. boo liiree euh, maanaam xasaid yi nga xam ne def na ko ci moom di ko tagg am na ci biir xasida bi foo xam ne mu naan huwa alladi danna dahrun wa aba abadan an yubri danna mislahu fi diinina al xiwami mu ne jamono nay na génneewaat beneen boroom xam-xam bu mel ni boroom jaamal mhm. ci suñu diine yi mhm. fa tabaarakallaahu te xas xas xasaa yooyu yëpp mu def ci mhm. kanam boroom jaamal la ko defee loolu day wane euh, moom fi mu tolloon ci wàllu xam-xam euh, fa tabaarakallaahu gannaaw boo xam ni nii borom jaamal làqu na nag ci atum 1925 comme ni ñu ko waxee ci la dal di tàggatoo ca jaamal pour ñibbi fi nga xam ne nii moom mooy masqatu rasihi mhm. fa tabarakallahu bu ñu continuer incha allah dinañu mhm. gën yaatal ci incha allah dinañ ci ñëw euh, laataa ñuy dugg ci bi mu ñibbisee wala boog itam euh, fi nga xamante ni la jaar ba ñibbisi maanaam dimension wu xam-xam bi laa bëgg ñu taxaw ci mhm, euh, am ci sa jàngar wala boog sa commentaire comme ni ko al amin waxee bindkat la woon kon déggee nañ ko ci maanaam taalifkat la woon tolluwaayu xam-xamu Cheikh El Hadj Omar jamono bi muy bàyyeekoo jaamal wala boo it jamono bi muy nekk jaamal na ko gisee wala boog itam lañ ci mën a doon booba euh, tolluwaayam mustawa ilmihi booba kawe na trop mhm. ndax koo xam ne bi nga nekkee daara ja mhm. ci nga commencé bind ay xasaayit maa ngi benn xasidam boo xam ne ci mille mille neuf cent vingt la ko bind mhm. parce que mu ngi mu ngi mu ngi ñibbi si mu ngi vingt cinq mu ngi bind ci suuf mille neuf cent vingt trois booba waajugul bay ñibbi ci la bind xasida boo xam ne comme mooy bi ngi wax léegi daf ciy tàgg borom jaamal mu fekk dafa nekkoon westro mm-hmm. nekk loo xam ne kenn woyu ko mu ñëw woyu ko pour mu mm-hmm. neex a mokkal ndax ni mu amee njariñ mm-hmm. xam ne dafay wax ci jikko nit ki boo melee nii mel nii mel nii wala melal nii bul mel nii waaw mu nekk xasida bu rafet bu gudd sax boobu tabaarakallaahu ku ko sharxa woon mën nga ci génne lu bari bari bari bari def na yeneen xasaayit ci ay am daax ci di tagg tagg ay kilifa diine am na boo xam ne dafa fekkee woon motalim tafsir suñu ay dëkkandoo ñu sant tàmbedu mu def ci benn matxu bu rafet di di wax xam-xam bi mu dégg ci jataay ba loolu tamit da nga ciy déggee ne alaaq bu rafet ñu amoon ak ñi mu dëkkaloon ci Saalum ak Sénégal yëpp bokk na ci tolluwaayu xam-xamam Euh, tabaarakallah ay mbindam mm-hmm. firndeel na mm-hmm. xam bu kawe voilà euh, te bi mu ñibbisee it mm-hmm. samp daara dafa euh, samp daara joo xam ne daa jàngal tawxiid Ibrahima Bajuri jël laxdari ci dem ca mboolem fànn la. daanaka mën naa ko mën naa ko dugalaale foofu sama question sax ndax moo doon ginnaaw boo xamante ni bàyyi ko na jaamal 1925 comme ni nga ko waxee mhm. eh, naka la ñëwee ci tund por la ñibbisi wala naka la def ba samp daara. ok macha allah taala nee ñu bi nga xam ne sëriñ Mbocc na liggéey maam Borom jaamal ci 1925. Mhm. Mhm. maa ngi liir ci sama mbindu waajur nee na juróomi at la fa def jaamal. kon da gis ne dafa def 1900 dafa dem 1920. 1925. vingt cinq dem gaañu ma laxas. Mm. dellu Kër Baay. Mm-hmm. ba muy laxas nag dellu Kër Baay. Mm-hmm. fekk na ay maamam ay maamaatam. Mm-hmm. amoon relation bu rafet ak buur yi fi nekkoon ci boobu jamono. Euh, moo tax mu ne dafay diisoo ak euh, bëlëb ndukumaan ñu gën ko xam ci bëlëb Ibrahim. mu bind leetar ne ko man dama bëgg a dellu euh, ñibbi ma la laaj sa xalaat ci naka lay def ci la ne ko booy dellu de euh, li ma la gisal mooy bul dellu kër baay direct ngay xool fa ca fa sa wëlëre bàyyi gën a bëree mm-hmm. xam ne ne waajuram borom mi nit la woon ku yàlla may la woon amoon ay taalibe am am ñu mu jàngal am ñu mu yar voilà muy Sëriñ Por mm-hmm. xoolal fa ay wëlëreem gën a bëree nga dem foofa ba mën dara mhm. ndax boo delloo ci sa dëkku baay amaan na euh, tabarka nit ñi ñu koy waxee rek euh, gën a jege ñu koy waxee nit ki li mu jege dëgg dëgg dëgg du ko xam mhm. mu dellu fa fa nga xam ne mu tànn geraan daal mhm. geraan mi ngi foofu ci gannaaw Arafat waaye ba ñu waxtaanee lañ jël geraan am na fa mu fanaan ñu xalaat na na fa dem mais bi ñu waxtaanee na dem geraan mustawa ilmihi loolu daf koy firndeel euh, bi leetaru nuyoo ak yëglu mag naan ca wa aleykum salaam wa rahmaanu amaddakum bi xayrihi geraanu euh, continuer di ñaanal waa dëkk ba mhm. ba ni mu leen yëgalee ne maa ngi ñëw pour dëkk seeg yéen euh, di ñaati gim nga xam ne ma ko mooy mu ne maa mhm. mhm. ma ma ma maa juufa njéeme kay mu maa juufanaa fa dallakum day waaw ah, ay taalibe baayam la lañu woon mhm. mu ñëw ñu dalal ko foofu ci geraan euh, tabaarakallaa defal ko kër ci wetu jàkka ji mhm. ba sax booba lañ ko bëggoon jébbal jàkka ji waaye mu joxe ci ba mu ñibbisee njàng ba rek lañ ko mhm. bëggoon mu samp daara joxe ngànt ci jàkka ji euh, suñu maam yi ñu wax maam Thiali kodd moo doon imam ba waaye ñu doxal doxal mu yàgg ñoo xam ne daal wax dëgg yàlla Euh, góor gi moom tawarkal war na mën a jël imaama gi mhm. mu daal di ko nangu nekk seen imaam samp sampe fa daara euh, sax fa euh, juróom-ñeenti at mhm. ba taawam fa la gane àddina muy maam Moor Yaama maam Muhammad mhm. xalifaam bu njëkk moom sa alxaaji Malik fa la ganee doom moom alxaaji Alin fa la ganee mu am fa juróom-ñeenti at yor fa daara di yare di jàngale mm. waaye kër baay cosaan wax dëgg yàlla toujours rek eh, xol bi dafay dellu mm-hmm. ci la xalaat nag dafa war a dellu Porndramé mm-hmm. ci la jógee Guérane dellu si Porndramé ñoo sax fa juróomi at moom itam mm-hmm. eh, xelam daj mu sanc dëkk mu dem ca penku Porndramé sanc fa dëkk bu ñuy wax fa ko siwee ci Banjul tabarakallah mhm, ñu taxawaale foofu euh, tegaale fa loxo al amin fi ma bëgg nga ñëw daanaka commentaire lay nekk mhm. euh, que stratégie lañ gis daanaka ci dund ni bu dee sañ nañ ko waxee noonu amagul doole am na stratégie boo xam ne tegal nañu ko ko mais jëfandikoo na ko ba keroog muy mën a samp daara fi nga xam ni moo di kër maamam wala boog itam dëkku baayam mais tëbul rek dem dal foo xamante ni daanaka mooy loolu la jëfandikoo moo tax mu jaar ci ki ñuy wax Ibrahima Ndaw muy bëlëm ndukumaan mhm. mu ne kon da may yëgal wala da may tàggu mu Seydina Omar ñëwee mm-hmm. mu tànn geraan dem fa fa tabarakallahu ñu dalal ko dalal bu rafet mu nekk fa ab diir jugee fa mm-hmm. dal di delluwaat fi nga xam ne nii moom mooy cosaanam mm-hmm. muy por bi mu ñëwee por def na fa juróomi at fa tabarakallahu nekk fa ak mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak way juróom nekkin bu rafet gannaaw bi mu fa defee juróomi at la jugee por dal di sanc benn dëkk ci penku por fu ñu wax faas mu gën a siwee ci Banjul wa tabarakallahu dëkk boobu mën nga wax ne jomar Banjul la njëkk bàyyeekoo dem aji Banjul la njëkk bàyyeekoo aji fi nga xam ne nii moom mooy màkk lu mel noonu muy araf ñi di leen yar ñi ci tar tarbiyatul islaamiya di leen xamal seen diina di leen gindi waaye di leen liggéeyloo pour ñi mën a nekk ay góor ndax nit bala nekk gor il faut day nangoo liggéey nit pour mu nekk gor il faut dafay nangu liggéey mm-hmm. moom yaru yaru leen ci jàng rek mais daf mm-hmm. leenoo yar ci jàng ak liggéey mm-hmm. ñaqal sa bopp loolu ci la nekk ci dëkk boobu di fa jàngale alquran di fa jàngale xam-xam fa tabarakallahu ba li nga xam ne ni génne na ko ci ay kàngam ci ñi jaar ci moom yépp ci dëkk boobu la leen fondement yo ba léegi ci biir xasida boobu am na wax yoo xam ne nii indi nañ ko ci foofu di ko wax ne wa kaana al qiyaadu al jiyaalu l garraau bi ilmi al aqili safaau rawaau maa sha allah fa tabaarakallah moom mooy ki nga xam ne moo doon woomat yer waaye di leen jàngal itam xam-xamu aqida muy xam nga leen mboolem funun yi nga xam ne nii. Mhm. doomi soxna yi dañ koy jàng. Mhm. fa tabaarakallah dinañu dinañu gën a ñëwaat ci njàngaleem ak si euh, bi nga xamante ni ñu bëri nee nañu amoon na ko ba ku mu jàngal di nga xam euh, laata loolu yaakaar naa ku yàlla xiiroon ci sanc ay dëkk la. Mhm. Euh, al ñëw na ci daanaka. yow itam commencé woon nga ko ginnaaw Banjul Arafa. am na yeneen dëkk yoo xam ne moo ko taxawal wala. waaw Sëñ Mansour gannaaw bu mu sancee Banjul googu. tabaarakallahu fa la jógee ci 1947 8 ba 9. <laughs> sanc Arafat euh, moo sanc <laughs> Arafat Yaman <laughs> Ayman Dramé ak Banjul Banjul xaayara moo doon toolam bi nga xam ne tool bu mag la woon ba jamono ji dëkk la boo xam ne doomam mm, El Hadj Saïd moo koy dundal sanc na ay dëkk yoo xam ne du pour moom waaye ni ko Mamadou Amine waxee pour jullit yi pour doomu aadama yi am fu ñu dëkk am fu ñu tuure seen ñaq dun dundee lu lew euh, noonu la bënnee ay teen yoo xam ne nee ñu mat na ñaar fukki teen ak juróom vingt cinq teen yoo xam ne te wax naa ko booba teen kon booba teen dimension forage la am. xanaa daa bëggoon ndox. voilà dafa bëggoon ndox nag booba ndox ndox dafa jafe nag booba <laughs> waaw booba ndox dafa jafe booba am teen. jafe na lool. macha waaw waaye nag ci yitteem. ak yéene nit ñi dund bu. Euh, normal bu ñoŋ. Mm-hmm. moo taxoon euh, mu taxaw taxawaay boobu noonu. Mm-hmm. ba sax tax na état woowoon ko boo gisee am na photo yoo xam ne. Mm-hmm. mi ngi mbooloo. sol manteau boobu mm-hmm. état woo ko di ko cappal médaille ci taxawaayam ci mm-hmm. doomu aadama yi mm-hmm. ndax euh, tabaarakallaahu loolu euh, sag la te loolu tamit royukaay la ci ñi nga xam ne ñoo ñoo koy wuyoo moo xam euh, mboolem jullit rek képp koo xam ne te yaa ngi dégg waxtaan wi ki ñuy waxtaanee ci wàllu jikko ni ko Mouhamadul Amin waxee jikko joo jël jikko bu rafet boo jël mm-hmm. royukaay la ci woon. macha allah waaw ci xam-xam. Mm-hmm. ci nangoo jaamu yàlla ci nangoo liggéey ci maandu ci lépp rek loo xam ne. lu ñu nawee nit la. Mm-hmm. ci fa ci gën a kawe la toogoon. macha allah tabaarakallah euh, bëgg naa itam nga yóbbaale benn question euh, comme daanaka Mamadou Lamine commencé woon na ko ci daaraam ci Arafa. parce que daanaka dafa mel ni jaar jaaruwaay yëpp dafa mel ni euh, passage la woon pour waajal dëkk mboobi di Arafa. Mm-hmm. Arafa daanaka mën nañu daaraam ju mag fa la ko taxawaloon. Mm-hmm, mm-hmm, daara jooju nooñ ci mën a ñëwalee ci ñi nga xamante ni jaar nañu fa ak itam xam-xam bi nga xamante ni yàlla defoon na mu nekk ci daaraam. tabaarakallah bu ñu delloo ci waxtaanu Baye Alaaji Birane Wade. ndax waxtaan dafay baax nga am dalil fooy dellu am mhm. marja am source mhm. nee na daara ji daara ju mag la woon ba amoon na lu ñu tudd ay ruq-ruqaat ci biir daara ji ci biir daara ji mhm. nga xam ni ñi xam arafa néegam ba géejaan nga ay këru daara la woon waaw te loolu yaakaar naa ne ay maître yu yaatu la waaw nit ñi daan jóge fu ne ñëw di fa jàng bokk na si ñi fa jàngee ki ma tudd léegi mooy Balaaj Biraan Wadd mi mm-hmm. ko xam-xam ko ci xam-xam ci fànn yëpp nag waxam mm-hmm. euh, boo ko déggee xam boo ko déggee xam ni kii musawa musawaam ci xam-xam kawe na moo xam ci naxu ba luxa ba yëpp day day ñëw mm-hmm. mbokkam Balaaj Demba sa kii euh, Ndaw Maam Demba Balaaj Demba Ndaw jokkul ak Bay mm, ma Demba Saar ñooñu ñëpp ay ku ne samp nga daara ci sa ci sa dëkk fi nga nekkoon daara ju mag nga fa yoroon mm-hmm. te foofu la ñuy génnee waaye balaa ngay sori nga nekk ci ay doomam xalifaam si mm-hmm. alxaaji Malik doomam mm-hmm. si alxaaji Aliyun ngi wax de dafa jëloon doomam yi ku ne mu am fu la féete fu mu la féetale ku mel ni xalifaam da ko féetale woon ci wàllu liggéey tool yi mu am ci taxawaay boo xam ne ñëpp a ngi koy nettali ba léegi mooy Cheikh alxaaji Malik jëloon doomam Cheikh El Hadj Alioune dénk ko wàllu daara ji. Mm-hmm. jël doomam Cheikh El Hadj Abdou. Mm-hmm. dénk ko ko diggante moo gan ñi. Mm-hmm. rawatina euh, kilifa kilifa réew mi. ba ñu des ñëpp ku nekk rek. am na foo xam ne fa la la tegoon. nga féetewoo fa. Euh, wane fa preuve yoo xam ne nag. ñu fi jógee loolu nga wéyal ba ba nit ki nii sax tey. Euh, moo moo law si njaboot gi. tabaarakallahu kon daal nit la koo xam ne. mën nga ne. benn xam nga ko tuddee rond point wala célèbre yoon nga xam ne lépp fa dajee ci moom mm-hmm. mépp mbaax dafa dajee ci moom rek mm-hmm. côté boo ñëwee rek da ngay fekk ne mm-hmm. mëte na ko nee ñu sax njëriñam ci doomu aadama yi ay taalibeem yemutoon ci jàngal xam-xam rek bàyyi la nga dem waaye même ci sa dund daf daf la ci gunge bu taalibeem taalibeem ñëwaan ci moom bu ñu jàmm santé la ma ko njëkk laaj mooy ren bi nga bàyyee ñaata nga am boo boo waxee li nga am. Mhm. yàlla may ne ko mu laaj la ñaata nga am si njaboot. Mhm. sa kër ñaata fa yeewoo. Mhm. bu xamee li nga am. mu xalaat calcul ne la euh, jëndal nangam nga dolli fekkee dafa gis dafa day manqué jëndal nangam nga dolli. bu xalaatee ne li nga am doy na de mooy ne bu ci jaay bu ci jaay dara. kon mi ngi lay gunge ci sa dund àddina. pour mu ñoŋu. Euh, ñu nga ko léegi ci wàllu dem màkk ni mu ko bëggee woon ñu mm-hmm. bari moo leen dimbali ba ñu aj màkk ñeen nañu ci ñaan la ñeen nañu ci gunge ci xalaat mm-hmm. ak ci tabaarakallahu mm-hmm. teg ci yoon rek macha allah dinañ ci dinañ ci dinañ ci dellusiwaat ci biir waxtaan bi moom du euh, Mamadou Lamine euh, commentaire daanaka lay doon ci ba léegi daanaka ni ma ñëwee woon ci yoon bële parce que ba léegi stratégie lañ gisaat. Mhm. waaye itam ku organiser ab dundam lañ gisaat parce que daanaka ni ko Seydina Omar waxee. Euh, organiser woon na njabootam ba naan ba daanaka koo xamante ni dafa euh, chargé affaire euh, extérieure. dimension boobu loolu moo ko yóbbee woon Cheikh El Hadj ci sa jàngat. fa tabarakallahu comme ni ko Seydina Omar waxee. Mhm. ci stratégie bi nga xam ne. Mhm. Mame El Hadj Omar Dramé bokk nañ ci stratégie mi man jamono. góor gi ku mënoon jamono la. Hmm. ku déggoon jamono la. Hmm. parce que organisé na jamono ma. parce que moo tax am na benn shaayir bu ko wax na ko. Hmm. bi xusni mënoon jamono la. moo tax njabootam boo gisee ñu mel ni ñu mel nii ci moom la. maanaam moom moo leen takk wiin moo leen defal formation boobu noonu. loolu yëpp stratégie la boo xam ne Maam El Hadj Omar Dramé moom moo ko def ci njabootam. beneen bi ba léegi mu mel ni Seydina Omar junjoon na ko ci gannaaw. mooy bi muy wax. tuddee ko kifaayatu taalib. mu mel ni téer la boo xam ne nasru la woon. mu jëlee ko ci nasru. nekk téer boo xam ne dimension kawe na. boo demee ci biir téere bi fi muy tàmbalee téere bi daf ne i'lam bi anna al xayra kulluhu daqala taxta tuqallahi alladi azza wa jalla maanaam nit pour mu mën a am yiwu àddina ak yiwal àllaaxira fokk day sukkandiku ci ragal yàlla yàlla wax na ko ci alquran wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqu min xaydu la yaxtasib nit bu bëggee lépp lum dugg am ci réussite totale fokk day sukkandiku ci ragal yàlla téereem boobu téerewu téerewu dimension mustawa bu kawe la la yor fa tabarakallah comme ni mu la ko waxee mu nekk téere boo xam ne da ko jëlee ci nasru yóbbu ko ci ay wëy ci biir téere bi jàngale na ci nit ki naka lay organiser addinam ak naka lay organiser àllaaxiram mu ni fat bu dirhaman li nafaqa wat la bu xasanatan li laaxira addina bi ku fi bëgg dund li ngay dunde yaa koy fàggul sa bopp àllaaxira yi ku fa bëgg am ak texe li la fay texeel yaa koy fàggul sa bopp kon sëriñ bi jàngale na yeete na jëf na ñu gis mu jàngale ñu gis mu yeete ba léegi euh, boo toppee xasida bi boo demee ba ci biir xasida bi dañ cay fekk muy jàngale nit naka la war a di taxawee ci lépp loo xam ne ni lu lënt la ndax képp koo gis ñu nax ko rek ci ñett lañ ko naxee benn dañ ko naxee ci subha wala ñu naxee ko ci xawaaya wala ñu naxee ko ci dalaala boo demee ci téere boobu maam El Omar Dramé gaaw na faa yee ay taalibeem nit ki ñu naxee ci subha mooy nar lañ lañ muuree dëgg nax ko maanaam dañ ab nar lañ muuree dëgg nax ko loolu mooy subha muy ci ak lënt lañ ko naxee. Mhm. am na ci koo xam ne ci rawaaye lañ ko naxee muy ak ñoradi. Mhm. rawaaye mooy diddu rushd. Mhm. maanaam ñàkk xam li nga yor bañ nax la ci génne la ci. loolu mooy rawaaye ak ñoradi. beneen bi mooy dalaala mooy diddul ilm. nit bu xamut. dafay dafay neex a sànq. fa tabaarakallaa moo tax boo demee ci. bi téere ba. da nga fekk góor gi di jàngale loolu ne wa awqifanna fi shubhatin ya saaxi wa aqalilan riwaayat alxajjaaji mu nekk téere boo xam ne incha allah xëy na buñ gën a mhm. continuer mhm. dinañu ñëwaat ci dimension góor gi mhm. ci yeete bi nga xam ne yeete na ko ci wàllu xam-xam fa tabaarakallah ak dimension bi nga xam ne amoon na ay yeneen xasaayid yoo xam ne nii góor gi def na ko di ñaan ci wàllu xam-xam pour njabootam ak doomu aadama yëpp incha allah mm, macha allah Seydina Omar euh, xam naa ne daanaka waxtaan bi moom lépp dañ koy def coof coof ci lii coof ci lële parce que mm. jëmu ni toll mu ne su ko waxtaanee ci benn jotaay mm-hmm. euh, fi may ñëwee ci yow mm-hmm. euh, moo di ku xam xam ne ci tarixati tijaan yàlla bokkoon dimension bi nga xamante ni wala bokk itam tolluwaay bi nga xam ne amoon na ko ci tariixa bi ak fan la jaar ba yegsi si tariixa bi wala bokk itam tariixa bi fan la jaar ba yegsi si moom loolu ci mën a allah Cheikh Mansour Cheikh Alaaji Omar mu ngi nekkoon ci tariqatu tijaaniya comme ni nga ko waxee waaye dafa fekkoon waajuram maam Sëriñ Por maam Maalik Xoroja nekkoon ci kàngam yi bokk ci bokk ci ñi wesaare tariqa bi ci réew maam Malick Khoroja euh, waajuram di maam Saïd jaara mhm. moom bi muy dund dafa fekk tarixa bi di dugg ci ndàng-ndàng ci réew mi waaye doomam maam maam Malick mooy ki nga xam ne nag moo fekkee bu baax euh, tasaaroo gi mhm. moom mi ngi jàppee ci moom Thierno Alioune dem mu jaay Kounda mhm. maam Thierno Alioune Deme jëlee ca maam Mouhamed Diallo bu Fëbul de mu law ba ca Mouhamed Hafiz ca Mauritanie waaye yitt bi nga xam ne bàyyam amoon na ko ci tariixa bi mhm. euh, tabaarakallaa kawe war na lool ba yàlla may ko ci euh, ay maxaamaat mhm. yoo xam ne euh, dañuy wax ne ndaraame alxuraan moo leen fal avant tariixa fekk na mhm. ñu doon li ñu doon waaye tariixa dafa ñëw nag taaral yokk waaw yokk li nga xam ne mooy maanaam euh, mbaax gi mhm. ndax tariqa dafa ñëw pour organise sa da nga mën a am loo saxoo loo xam ne doo ko bàyyi mhm. moom nag mu nekkoon ci ci ñi ci gën a mag ci booba jamono ndax koo xam ne ñi ñu xam ci réew mi ci tariqa bi ñu am ci taxawaay yu fës mhm. ñi ci ëpp moo leen magoon waaw ñi ci ëpp moo leen magoon moom mille neuf cent sept la wàcc ci liggéey fekk na mu liggéey li mu war liggéey ba jóge fi Euh, bëri na ay kàngam yoo xam ne ci moom nañ jàppee mhm. ba samp taal seen taal mhm. euh, te bokk na lim ci réew mi du jeex tabarakallahu euh, ca Cheikh Ahmed ba ci sunu borom mhm. subhanahu wa moom moo jox maam Ibrahima Jaw Sàll di waajuru maam xëy bu sàll bu Dimishqa dénkoon ko ne ko bu Omar màggee nga joxal ma ko tarixa bi joxal ma ko yeneen i mbóot Euh, mboot yooyu nag mooy liy gaawal jéego. di yóbbu nit yàlla yi ca kaw. Euh, ndax bi muy bi bàyyam di wàcc liggéey boobu nee ñu mu ngi am mu ngi toll ci dix ans fukki at. am na ñuy wax treize ans waaye dix ans moo gën a siiw ndax mu ngi gane mille neuf cent mille huit cent quatre-vingt-dix-sept ci li gën a siiw. bàyyam wàcc liggéey mille neuf cent sept. bàyyam boobu bu ñu ci taxawoon di ci wax rek. fi bu soo du jeex ci dimension am ci <laughs> euh, ci wàllu yàlla dimension spirituelle am biñ ci may rek donte wax nga sànq sax ne bu ñu xus ci loolu mm-hmm. euh, waaye comme xalifa bi moo koy nettali mm-hmm. lu am solo la mm-hmm. am na benn euh, ilimaan mosoon doon jiite mbooloo mu ngi tudd maam Antu Ndaw doon jiite ba ci digg ba mu am ay kàddu yu mu wax

nekkoon taalibe waajuram mooy tamit nekkoon borom mbir tabaarakallaahu mm-hmm. nee na bi mu ñibbisee njàngaan mm-hmm. dafa bind lettre mm-hmm. yónnee ko góor gi ne ko sama dénkaane waajur laa bëggoon sa doom diw di gën a ko rafet loxo la na ma ko bindal Rama Jaw laaj ko condition yi nga xam ne tey ku soxla loolu fa ngay jaar mu remplir condition yoo pare. Mhm. jox soo ko jox dénkaane. ndax loolu du lu ñuy paasante rek. Mhm. Mhm. gratuitement. fa am euh, lu mu laaj. mu matal ko. mu daal di ko jox tariixa bi. daal di ko jox mbóot yi nga xam ne moom la ko waajuram dénkoon di maam Serigne Por. ñu mu ci jotee nag yitteem ak góor góorgóorlum ci la war fasu dogu. ba yàgg fi mu yàgg. waaw ndax na cheikh nee na mm-hmm. himmatul insaani qaahiratu mm-hmm. jamii al akwaani mm-hmm. yitee doomu aadama dafay not mboolem lu yàlla bind tey jii li may ñàkk-ñàkk solo su ma gëmoon ni mën naa dem ca weer wa balaa yàgg ngeen dégg ma fa waaw waaye yitte moo ko yóbbu fi mu àgg man dama damay wax ne fekkewuma ko mais suñu may nettali dundam ak doxinam yitteem moom ay yem. Mm-hmm. yitteem mm-hmm. laa yem laa yem ci ci ci ci moom. macha allah waaw tabaaraka li mu li mu mm-hmm. réalisé ci koo xam ne sa waajur wàcc na boo yaa ngi am fukki at. waajur wu jigéen mu ngi ko denc geraan. gis nga geraan cinq la fa am. kon yàggul ak moom. kon daal tabaarakallaahu mhm. yàlla may na ko mhm. waaye nag moom it góorgóorlu na mhm. macha allah macha allah ah, am na solo yaakaar naa ne indi nga ponk yu bëree bëri yoo xamante ni eh, du ñàkk suñu ay internet rawatina ñi nga xamante ni daan nañu dégg te ràññeewuñu lu bëree bëri dinañ ci mën a jël ay notes yoo xamante ni dinañ ko sax mën a garder ngir eh, rafetalee ko seenu ko dund euh, Mouhamadul Amine eh, ba léegi dama bëgg ñu gën a desaat ak yow ci xam-xam bi euh, résultat wu daaraam boo da nga résultat bi. Mhm. ban note nga koy jox. 9 euh, sur 10 wala 10 sur 10. 10 sur 10. Ah, ok. wa tabarakallahu comme ni ko Seydina Omar junjee woon. Mhm. Euh, résultat bi nga xam ne Maam El def na ko. Mhm. doy na rek njabootam yëpp moo leen jàngal. wala ñi ëpp ci ñoom. moo leen jàngal alxuraan. jàngal leen xam-xam ñi mag ci ñoom. ñi ci gën a nekk ndaw am na ci ñoo xam ne nii. ci kanamam lañ commencé jàng alxuraan mu yëkkati leen jox leen ñenn ci taalibeem ci biir daaraam euh, ci biir daaraam comme ni mu ci tuddee sunu baay Haji biraan Wade mu nekk borom xam-xam bu mag mag ku ñëpp xam ci tund Saalum kenn dootu ko présenté Serigne Mademba Sarr Serigne Mademba Sarr nga man ci liñ ku mel suñu bàyyi alhaji mot sàll ci fas berene ñi koy ñaanal son borom gën a yokk wéram mu nekk muntim borom xam-xam bu mag bo xamne toujours day wone niveau mam alhaji Omar dran fi tolon ci xam-xam don wax ne serigne bi mbolam xeti fànni xam-xam yi dan nako jàngale motax bo boo ci xasida bi nga xamni ni mom lañ ko defal te ñoko ko mu fassirul usuli mantiqul muhaddith balaghi ma al arudi lugha mboolem xeeti xam-xam yi. Mhm. maam Cheikh Seydi El Hadji Omar ko jàngale. kon li ñu daan dégg ci xam-xam ci jamono que ne boo soxlaa lii fii ngay dem boo soxlaa lii dem bërëb sàngam Cheikh El Hadji Omar moom pegoon na lépp ci daaraam. doomam ba El Hadji Ali. Mhm. moo ko dalal baasin ba tafsiral ko. Mhm. sëriñ euh, Mademba euh, sëriñ bi dëkk Jokkul. sëñ Mademba Ndaw sëñ Mademba Ndaw. ci këram la jànge ba tafsiiree fa boo ko fa dem màkk ñib si waat ci daram ñuy gunge ko mu ñibbi këram te du kenn rek loo ko defal ba defal na ñu bari ci taalibe mu nekkoon koo xam ne ci loolu ci la jeexal dundam bi ba léegi ci biir xasida wa ñuy continuer ne wa af firaqatu muddal asuri bi taalimi wa murshidin nasihaw jàngale yare ginde laaye ci la jeexal dundam bi yépp moom El Hadj Omar Dramé فتبارك الله منكون نيتكو خامني كوم مانونا يارلا نكون كوم مانونا جانغلك دوينا اكزامبل تي كوم دوم بوم نيوخ بي الحاج علي امنا مجموع قصائد يو خامني ني داف كو تاليف يي مون تي ليرال خام خام يو ام سولو ما شاء الله لو ملني علم ليله القدر بو ديمي تي تير بو مون كوي مون كوي ليرال يا سائلي عن ليله مبارك اي ليله القدر اظن مثالك ها def ni itam beneen téere boo xam ne nii daf ci laaxee biir mm-hmm. nit ki bàyyi xel àddina am na beneen téere boo xam ne nii daf ci leeral wattandikuloo nit jël alalu jàmbur mm-hmm. alal ju nit liggéey ba pare mm-hmm. nga jël ko ak yeneen martiyaat yoo xam ne def na ko ak yeneen gatbal yoo xam ne ci wàllu xam-xam génnee leeral boo demee ci te loolu niveau bu niveau bu kawe la loolu niveau bu kawe la ñooñu ñëpp ci produit yi nga xam ne ci produit maam Cheikh Seydil Hadji Mawlana lañ ci allah macha allah ci ñëw ngir gën a taxaw ci naka la ñuy mën a def ba gën a jëmmal xam-xam bi nga xamante ni bàyyi na ko. Hmm. waaye itam njabootam comme ni nga ko waxee ko ci mel ni Cheikh euh, hmm. euh, fi bàyyi ci xam-xam nees la ñuy mën a def ba euh, ndaw yi tey ak ëllëg war ko mën a gën a jëriñoo mais yoonu màkk dégg naa lu mu farataaloon la Seydina Omar. Hmm. moom ci boppam ni ko Seydina Al waxee dem na màkk ñetti yoon. ci biir waxam léegi tudd na ma taalibeem boo xam ne ci biir daaram la nekk dafa dem màkk dellu si waat ci daara ji. Mhm. relation moom màkk wala boog aj. lan la woon. xanaa bëgg rek dafa dafa soppoon màkk. Mhm. soppoon aj te lépp aj màkka euh, nekkul lu lu lu ndaw. Mhm. ndax ponk la ci lislaam mooy juróomeelu ponk ci lislaam mu bëggoon nit ñi bàyyi ci xel taxoon mu teg ci loxo. Euh, doomam bi ñu wax bi ñu wax léegi mooy solo El Hadj Alioune mhm. bi muy aji màkk boo sampagul kër boobu mi ngi am vingt cinq ans mhm. waaw boobu mi ngi am vingt cinq ans ci la aj màkk mhm. bi mu ajee màkk ba ñoom mu dajek jógee Arafa ànd ak mbooloo ñoo dajek moom ci yoon bi macha allah te dagal ko ngir wane li mu defee woon ni mu amee solo gi mu waaw yàlla may ko ci nag ku mu ñaanal yoonu makk yàlla yombalal la waaw wax nañ ne ku mu mos a jox loxo ni la waajal màkk sa dem màkk teew na waaw bëri na ñoo xam ne tey du xaj du jeex benn bis suñu mag Mahamad Mahamad Al Amin Malik kii na recensé na tur yu bari lool ay alaaj yoo xam ne yàlla ak sa alaaj Omar ak yitteem ak ñaanam ci lañ dem màkk wala ci yittee doomam Mhm. ñaani ay doomam ci lañ dem màkk mhm. ñu bari lool miin nañ ko sax ci booy tudd ay muqaddamam ay taalibi wala ay doomam nga mhm. ne alaaji nàngam néew na nga tudd muqaddam wala doomam te neew alaaji euh, ndax bokkoon na ci ni mu daan ñaaxee ci dem màkk ci li ñu nettali su gàmmu amaan dafay wax képp koo xam ne ab alaaji nga nanga sol sa mbaxana màkk nga ñëw ñu nekk ci premier sàppe alaaji alaaji yi ngir mhm. ñeneen ñi tabaarakallaahu am xememteef ci dem màkka mhm. mhm. euh, daana sax rappel euh, di rappel di woote alaaji diw sàngam ñëw na alaaji diw sàngam ñëw na sàngam ñëw na loolu lépp euh, tabaarakallaahu aw waar la wum doon bay ci ponk lislaam boobu di aj màkka loolu moo law ci njabootam ba ku ñu yëg ne dem nga màkk ba ñëw fekk ñëw tatagaluñ la nga ñaanal leen mm-hmm. euh, du ñu am jàmm yaa xam nag noo mën a toll ci at waaye makk mm-hmm. nga jógee mm-hmm. fàtt nañ seen ay daal fàtt seen i mbaxana ba gis la ba nga ñaanal leen loolu dañ dañ ci dund nàmp ci kon tabaarakallaahu bëgg màkkam daal euh, fësal na ko ci njaboot gi nga xam ne ñoom la yëlif te loolu am solo la macha allah macha allah am na solo moom Lamine naka lañuy war a mën a def ak itam bindu Cheikh El Hadj Omar. Mm. Euh, man mi nga xamante ni peut-être benn ndaw laa. boo mm. xam ne dama toog fu sori di ko dégg. Mm. Euh, ndax jàpp nga ne mën nañ ci jëriñu ba léegi wala boog itam. taxawaay bi des na. waaw alhamdulilah. Euh, Maam El Hadj Omar <laughs> bi mu fi bàyyeekoo ba sunu jonn yàlla tey jii. <laughs> Mhm. liggéey mi ngi continuer. Mhm. ndax comme ni ma la ko waxee. Mhm. ñi mu fi bàyyi woon ci njaboot. koo dem ci këram di nga fa fekk daara mhm. bi mu demee ba mënatul mhm. darsu bi daf ko jox doomam muy bay alxaaji Ali mhm. moo continué woon darsu boobu di ko jàngale ñi mag ci njabootam moo leen jàngal ñi nga xam ne nii ñoo fare woon ndaw ci doomam yi am na ñoo xam ne génnoon nañ dëkk bi dem jàngi ci biit réew mi am na ci ñoo xam ne nii sonn nañoo génn réew mi dem jàngi ca خارج الوطن بكوني تنيونيو كمان سنو باي الحاج عمر سكي رحمة الله عليه سنو باي الحاج بشير اك سنو باي الحاج مختار فدي اك سيني رك لولي يب سيمول بي ميجي جوجي تي سين باي مي مام الحاج عمر درامي بنن بيتم نيو آه، تخاو تيمو ngir continuer liggey bi nga xamni ni mom la sen baye nekkon te mom moy jang ak jangale ak yare mhm. loolu royaat na ci seeni njaboot alhamdulilah mhm. kër gi tey boo fi ñëwee danga ci fekk ay ndaw yu am xam-xam mhm. ñii ñu ngi ci daara yi di jàng foo mën a làmb ci biir réew mi rek da nga fa fekk njaboot goo xam ne mu ngi aju ci kër Cheikh Seydil Hadji benn mu nekk njaboot ci deret wala mu nekk njaboot ci kër Alhaji Omar ci mbooleem barab yi nga xam ne dañ fiy jàngee alxuraan ci réew mi. Mhm. te bokk ci barab yi gën a baax daara yi gën a daqaat jàngale ci réew mi. Mhm. boo fa demee da nga fa fekk njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Omar. te itam ñu ràññeeku lañ fay doon. Mhm. noonu itam ngay gisee ne ci mbooleem yi si taqlidi yi ñuy jàngee. xam-xam boo fa demee da fa fekk njaboot maam Cheikh Seydil Hadji Omar ba am na si ñoo xam ne nii sax yàlla dogal na ñu génn réew mi dem jàngi boo demee fu mel ni Mauritanie njaboot gaa ngi fa Nabaqi boo demee fu mel ni Maroc njaboot gaa ngi fa boo demee feneen ak feneen njaboot gaa ngi fa kon loolu yëpp li muy wane mooy symbole bi nga xam ne moom lañ fekkoon seen maam symbole ko ci la ñuy continuer ñoom ñëpp te maam El Hadji Omar Dramé dafa ñaanoon ñaan yu am solo ñaanal na yàlla mhm. mu may ko xam-xam boo xam ne daf koy def ci biir njabootam mhm. boo demee ci kuraasa bi nga xam ne mhm. moom la sunu baay alxaaji Bachir defoon bi muy tàmbali kuraasa bi dama fekk mu indi fa ay ñaan yoo xam ne mi ngi ciy ñaanal boppam ak njabootam bi da daawtuka علما لا يكون لها إلا مثلا بيده مالك العمر يا ربي فاغفر لنا فلدلي بلطفك الكرم بجاه من في يده سبح الحجر إني دعوتك علما لا يكون لها إلا مثلا بيد مالك العمر نجاور جي أمنا شانس كو غور غور لرك أم خم خم داخ دنكو نامبو ماغتي يو نيانال لوكو ما شاء الله motax itam الحمد لله gi ñëpp ay cadre la masha allah du wax ko ngir euh, nit ci foofa mhm. la aju mhm. waaye yàlla dafa dogal njabootam ñëpp ay leer lañ macha allah nitu alquran lañ mhm. nitu xam-xam lañ nitu yar lañ nitu tarixa lañ loolu képp koo xam ne jaxasoo na ak njabootam xam nga loolu. macha allah lillahi alhamdu. macha allah loolu message boo xam ne ba léegi mu ngi. macha allah macha xam naa ne euh, ci fin waxtaan bi lañuy tëjee mooy euh, joxe message boo xam ne danañu soññi ñi ci mën a taxaw wala boog itam ñi nga xam ne ni ñu war a taxawu xam-xam lañ. ñu bàyyi ji xel mbindum Cheikh El Hadj Omar mm. ngir euh, jotale ko ndaw yi tey ñu mm. jëriñoo ko. Mm. relation ak kilifa diini yi mu jamonoonteel yi mu jamononteel bëgg naa ñu taxaw ci ndax ku amoon alaaxa yu rafet la dégg nañu ak. ñooñ jamonoom. rawatina kilifa diine yi. effectivement waaw si Mansour digganteem ak ñi ma fekkoonal jamono ci ay kilifa diine. ñëpp alaaqa bu rafet la amoon ak ñoom rawatina ñum dëkk ci foofu ci Saalum. daanaka da ngay dem beneen sax du ñaari du moom jàppewu leen ay ñaari kër. boo ne arafa ne jaamal nga ne benn lañ njabootam a ngi fa. njabootu jaamal nga arafa. boo ne arafa ne dimisqa benn lañ njaboot yi ñu ngi demlante di dikkalante mhm. waaye di mayente di eh, eh, sëyante ci seen biir eh, tabarakallahu boo ne aynal maadi foo tudd rek ci Saalum mhm. tabarakallahu loolu la séq ak même fi gën a sori fekkoon na baayam wala maamam am ak alaaq ñooñu mu ñëw mhm. rafetal ko tabarakallahu wax nañu sànq diggante mook Serigne Touba bi mu nekkee jaamal di jàngal la Serigne Touba laajte ne sëñ Malick drame ndax bana fi doom doom ju ñu ne ko am na doom bu ne jaamal mhm. di jàng eh, biñ ko ko waxee mu bind ay kaamil dem seeti ko ndax moom booba ndongo daara la mhm. ndongo daara bu ne ci daara nag bu kilifa gu toll noonu bu bu la bu buy laaj mhm. moom da ngay dem nga seeti ko ndax wéyal kóolare googu gi doxoon diggante seen ñaari baay ndax Maam Mor Anta ak euh, Maam Malick Khorodio ñoo daje woon ca Bamba Mouride mi mi nga xam ne. Mhm. Euh, tudd naa ko léegi. Mhm. Mamadou Bamba lañ tuddee Sëriñ Touba. Mhm. dañoo daje woon Daara ja yàlla boole leen ba biñ fa jógee sax maam Sëriñ Por fekkee na Maam Mor Anta Sali Poroxaan nekk moom fa ab diir. Euh, loolu moo tax Serigne Touba di fàttali ko kóolari googu nga xam ne moo doon seen waajur yi muy laaj ndax. bàyyi na fi doom mu bind ay kaamil dem seeti ko. seeti ko nag dakkul ñuy déggante di gisante tout le temps. Mhm. ba ni sëñ Tuba làqu jamono. moom wax na ne bokk na ci ñu gën a ko gën a may doole ci bi mu nekkee ndaw di samp kër sëñ Tuba ci la bokk. kon digganteem ak mouridisme lu. am solo lu yàgg la. Mhm. digganteem ak euh, Tiwaawoon ñoo bokk tarixa bi. Mhm. daan dem naan si dikkalante euh, dabaax ñëw na Arafa seet si ko. macha bi mu ñëwee jël mbubbam jox ko. ne ko. yow yaay nit yàlla pire yow mi tabax néegu yàlla bu rafet bële dëkk ci néegu ñax bi ak li li ñu li ñu seq yëpp tabaarakallaahu boo tuddee Kaolack maam Abdoulaye Cissé ak maam Malick mii ñoo bokkoon dëkk ca Gàmbi ki nekk Taïba ki nekk Cham ñu bokkoon benn jullikaay ayit mi leen bokk di julli ayit ba bi maam Sëriñ Por Laqo maam Abdoulaye Cissé moo ko jullee Sénégal maam Abdoulaye Niass dama dama jur maam Abdoulaye Niass moo ko jullee Euh, di waajuru Bañas mhm. ak maam xalifa ak seeni mbokk mhm. Sénégal daara ji benn la woon démb macha allah daara ji benn la woon démb ñoom ñëpp benn la woon macha allah euh, daanaka ba ca fa gën a sori ki ma ki ma wax ki ma waxul ñoom ñëpp benn la mhm. ñu woon daawuñu umpante ci dara euh, tabaarakala loolu mooy alaaxam ak kilifa diini yi alaaxam ci nguur gi wax nañ ko sànq Senghor moom ñëw ñëw na seet si ko Euh, ginnaaw la fi Abdou Diouf nekk Abdou Diouf ñoo na Arafa. Mhm. tabaarakallah ba ñi fi nekk nii kenn ko nekk rek yaa ngi bàyyi xel foofa. macha allah tabaarakallah macha allah euh, al amin euh, ginnaaw boo xamante ni génn na àdduna moom Cheikh a Hadj Omar. Mhm. moment bi muy génn àdduna dimension am daanaka xam nañu ko. Mhm. parce que ni nga ko waxee ak Seydina Omar mooy daanaka kilifa la woon ci jamonoom. boo xamante nii ñëpp ko doon bàyyi xel waaye tam ñëpp ko joxoon cër. ginnaawam taxawaay bi naka la demee ci njabootam am na loo ci joti ñëw mais premier xalifaam ak itam. rela euh, réalisation peut-être yi nga xamante ni euh, ak ni mu euh, téye liggéeyu waajuram bi. Mm-hmm. looñ ci mën a wax. fa tabarakallahu comme ni ko Seydina Omar waxee. Mm-hmm. góor gi nit la woon koo xam ne dafa amoon ak ñëpp relation bu rafet. Mm-hmm. moo tax itam ñëpp ko bëgg. képp ku dégg El Hadj rek. da am xemam ci dem dëkkam rawatina dëkkam bu barki boobu muy Arafat. ñu bëri dañuy dégg arafa arafa arafa di am mébét ñëw ziar arafa. te képp ku fa ñëw rek da ngay amaat cofeel. pour ñëwaat fa ndax boo fa ñëwee xusnu diyaafa gi nga fay fekk moo tax ngay amaat cofeel pour ñëw fa. mu mel ni premier xalifaam. muy suñu baay alxaaji Malick rahmatullahi alayhi moo njëkk nekk premier xalifaam ci atum 1971 ba 2011 kon mu mel ni toog na ci xilaafa gi. 40 ans yoo xam ne nii. zéro faute la am na ay relation am na ay mashruaat yu am solo yoo xam ne taxqiq na ko ci Arafa gannaaw boo xamee ne nii bàyyam génn na àddina bàyyam bàyyi na fi ay mébét bàyyi na fi ay naal yi bàyyam bàyyi woon te gënoon ko amul yitte mooy ndox maa ànd ak alxaaj Omar Dramé yàlla defaloon na ko ci bi muy dund wax nañ ne gas na lu toll si ñaar fukki teen ak mhm. juróom mhm. dama mos a dégg ci sëñ Mokhtar mu bel Hadj Abdou mhm. mu ni teen yooyu bu doon jamono bii teen bu nekk forage la kon tey boo bëggoon natt sa bopp da ngay xool ndax yow ci sa jamono mën nga def vingt cinq eh, bokk na ci yi nga xam ne moom la premier xalifaam njëkk njëkk def ci dundam mooy ndox fexe ba indi ndox Arafat muy forage mm-hmm. ci atum 1981 mm-hmm. ci jamono booba ndox lu tumuranke ci réew mi mm-hmm. Arafat dëkk yi njëkk am ndox ci région Kaolack forage ci la bokk ci atum 1981 loolu mu ngi amee ci taxawaayu Olivier Khalifa Alhaji Malick ay rakam mu jugee ci loolu indi hôpital ci dëkk bi muy dispensaire dispensaire boobu ba léegi moom Hadji Malick ci taxawaayam mm-hmm. ak ci liggéeyam mm-hmm. ci la ko taxawalee ci dëkk bi mm-hmm. yemut ci loolu mu taxaw ci dëkk bi def ko li nga xam ne nii moom mooy lotissement lotissement def ko ay borna ba dëkk bi mel ni mel tey ci bu yàgg ci lu yàgg ci ay jamono yu yàgg yemut ci loolu mu continuer fexe ba indi courant courant ci araf loolu mi ngi ko indi ci atum l'an deux mille moo lay wan Euh, góor gi yitti gu yitti gu rëy gi mu amoon. Mhm. moom la bàyyi ci njabootam. bàyyi ko mhm. Mhm. ndox forage ñu ngi ko njëkk am. ci atum 1980 Abdou Diouf moo bookoo. Dakar ñëw inauguré ko. en tant que président. en tant que président boobu mi ngi nekk président moo ñëw inauguré ko. forage bi ñi doon ko gas Sinwaa yi doon ko gas jëflante gu rafet gi góor gi doon jëflante ñoom. tax na bañ fii bookoo. dañ koy joxoon invitation pour góor gi dem. Chine Chine pour ziar yi leen. bel xaaji malik jox leen gànt. maa ngi ndox la bu am na ndox. mu nekkoon góor gu tabe woon. te yaatu woon lool. mën a maslaa lool. mën a muñ mën a jéggale. fa tabarakallahu ci xilaafaam ci la réaliser liñ la wax noonu yëpp indi na forage Arafa. def fa dispensaire. loti si dëkk bi. indi fi courant. ci atum lan 2000 la Arafa am courant. macha allah Seydina Omar daanaka dañ fay jaaree rek ñëw ci li nga xam ne moo di njeextalu waxtaan bi ba ko tëjee ak bés bu am solo bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal mu di ziar bi. macha allah le 6 mai. le 6 mai incha allah yaakaar naa samedi bii di ñëw la. incha allah. sabab bi ak itam. tabaaraka balaa loolu mu ngi sof ci fii Mouhamadou Amine tëjee kàddu. wala fi mu taxawee noonu. mooy su Cheikh Alhaji mhm. euh, dañu am sawxu lool wax ci moom lu mhm. mu gàtt gàtt ngir barkeeloo ko ngir mhm. euh, euh, ki ñuy waxtaane di maa la ñomal dañoo dégg rek ay jaar-jaaram waaye kii dañoo fekkee lu bari ci moom daanaka bu ñu yeboo ne moom mën na nekk seetu ci ki ñu waxtaanee loo wax ci moom ci mbaax ci tabe ci yitte des na waaw dafa bëggoon arafa da ko bëggoon moo tax yi mu fa indi noonu يالله ينكي بالكوك آه، دفع بقول لك ما شاء الله تبارك الله آه، نكون زياربي آه. زياربي إن شاء الله تعالى دبي موي لسيس موي سندي بيديو إن شاء الله سري مين اللي مينتي ومبولم جلدت ديجي ومبولم كروجيني جاري كوجي بنتو بديجي خليفة با بچه كجي غنا سوري شنجابوت وايدي وواسنة غاليب جاري كوجي لبريزدان دارت بيليك عاد مكسال ba ca premier ministre am. Mhm. ba ca ministre de l'intérieur wàcc ci préfet. de par non wàcc ci gouverneur bu Kaffrine. Mhm. région de Kaffrine wàcc ci préfet. Mhm. ak sous préfet. di rafetlu seen taxawaay nag ci fan yi ci waajtaayu ziar bi. def nañ ci ay waajtaay yu am solo am ci yéene. di ci woo euh, le ministre euh, Abdoulaye Seydou Sow. xam ne mooy tamit am na ay initiative yu mu ci jël yoo xam ne incha allahu taala. yan yàlla mottali. ñu ngi leen ci woo di leen encouragé ci seen euh, tawaaraka yéene yooyu leen mm-hmm. di ci woo le maire de Missirah Wadène nga xam ne mooy mooy yilif gox ba mm-hmm. euh, Moustapha Ndong mm-hmm. moom it am na taxawaay yu rafet yoo xam ne tàmbali na ko ci bis bi loolu daal ñu ngi koy rafetlu te di leen ci woo ñu wéyal seen yitte sëriñ bi kontaan na di leen ñaanal yàlla mu yokk seen mën